ليس مثله وكل من خدمني أو سارا فنجيه واغفر له أو سارا وكل من أعابني أو مالا إلي فزر mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi lii ngeen di gis ni juróomi junniy làmp la yu Touba ca kanam wàcce tey ñaar fukki fan ci weeru avril ci 2024 mbokk yi dañuy faral di wax ne là où la lumière passe l'insécurité trépasse Serigne Mountakha Mbacké xalifa général des mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér atum 2019 la génn ci dëkk bi doxantu nemmeeku ne dëkk bii kat lëndamaay gi foo ko natt weesu na ko ci la jokkoo ak waa Touba ca kanam ne leen dëkk bi lëndëm na ut leen ci ay pexe ci juróomi at yi Touba Ca def na fi ñeenti junniy làmp mbokk at mu njëkk mi junniy làmp ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk at ma ca topp mu jënd ñetti junniy làmp at ma ca topp mu jënd juróomi junniy làmp at ma ca toppaat mu jëndaat juróomi junniy làmp at ma ca toppaat mu ngi nii di juróomi junniy làmp yi nga xam ne moom la Touba Ca Kanam jënd ci atum 2024 bokk lii day yitte kese la boo xayma li Touba ca kanam def ci commission leeral diggante 2019 ak léegi ci oto yi ñu jënd ci personnel bi nga xam ne ñoo yore liggéey bu am solo bii ak ci pièces yi ak ci lamp yi ak ci poto yi mbokk yi mat na milliard te mbokk yi lamp yi Touba ca kanam laaju ci benn dërëm moo koy jëndi yàpp ko ci conteneur mu wàcc ñu jëli ko indi ko ñi koy monter Touba ca kanam leen di taxaw ci lépp luy seen yitte mbokk yi ba ci équipe boo xam ne ñoom équipe dépannage rek la ñu tudd mbokk yi am nañ jumtukaay yi oto bu leen di yóbbu am nañ jumtukaay yi nga xam ne it bu dee ay pièces yu paan la ñoo koy réparé mbokk lii nag yitte kese la mbokk yi firnde ji nag mooy mbedd yi nga xam ne ay at mësta ami làmp tey boo fa daaree dafa leer nañ kenn ku nekk gis na ne diggante garage Daaru Muxti ba hôpital Cheikhul Khadim Touba kanam dafa jënd ay poto lamp jënd ay lamp def ko fa moo tax booy dugg si dëkk bi boo génnee misira mu leer naañ boo doonee poste de contrôle ba garage Daara Jolof Touba ca kanam dafa jënd ay poto jënd ay lamp mbokk bu weesoo nag loolu mbokk juróomi at yii Touba kanam def na ci éclairage public ci dëkk bu sell bi di Touba lu mat milliard boo boolee ñaar fukki junniy làmp yi boo boolee personnel bi boo boolee la koy monté boo boolee pièces yi ci aju ba ci oto nasel yi nga xam ne Touba ca kanam fàggu na ko muy gunge ñi nga xam ne ñooy monté làmp yi ak di ko saytu gannaaw bu ñu ko monté ba noppi looloo tax ma ne Touba ca kanam ci juróomi at yi li mu def ci làmp yi mat na milliar wala jege na milliard bokk waaye lii lépp nag bu ko Touba Ca Kanam mënee yàlla seeni ñaar téeméeri tax yi biir corniche bi nga xam ne ci la liggéey bi dooree woon fépp leer na naññ mbokk yi ba fii ñuy wax ak yéen Touba Ca Kanam jéggi na corniche bi weesu na ko kenn ku ci nekk na bàyyi xel ne fépp fu mu nekk ci biir Touba bu ñaar téeméer yi dakkul leer gi ak làmp yi dana yegg si ci ñoom mbokk yi kon ay ca bu kenn xeeb bu kenn yéem laaj lu ñu mën di ko def fu ñu xam firnde jaa ngi nii mbokk am na numéro boo xam ne yéen a ngi koy gis képp ku ci am looy signaler ci làmp yi boo ci wootee équipe dépannage bi nga xam ne ñoo nekk ci commission leeral di ay ndaw yu sawar di ay jàmbaaru Sëriñ Tuubaa mbokk yi muy guddi muy bëccëg danañ ñëw réparer si lamp yi mbokk ndax jëndul ay lamp rek de dem toog déedéet dafa jënd ay lamp taxawal équipe de dépannage utal leen ay jumtukaay ba fu lamp paane ñu mën a jóg topp ko di ko defar ndax kat dëkk bi sëriñ bi nee na lëndëm na nañ cuut ay pexe pexe yaa ngi nii mbokk lii lépp nag bu ko Kanam mënee seeni ñaar téeméeri tax moo tax mbokk yi laaj lu ñu mën di ko def fu ñu xam dëgg-dëgg ñàkk cee bokk wóorul de moom yitte kese la jërëjëfati Touba Ca Kanam waaye jaaraama commission leeral bu Touba Kanam nga xam ne mooy taxaw lépp lu jëm ci éclairage public ak li ci aju mbokk jërëjëf Sëriñ Tuubaa jaaraama Tuubaa ca kanam Tuubaa ca kanam mi ngi fàttali jullit ñépp rawatina taalibe yi Serigne Touba yi ñu gën a farlu ci dëkkub Serigne Touba bi gën a taxaw temm ci saafara jafe-jafe yi dëkk bi ndax lu mën a nekk la lu gox sori-sori lu mu ruqi-ruqi lu mu jege-jege si biir Touba Touba ca kanam mi ngi koy bàyyi xel te am yéene saafara seeni jafe-jafe ci kaw nag ñu gën a farlu bu baax ci ñaari téeméer yi di ko soñña ci biir kër yi ci quartier yi ci marché yi ci charrette yi ak oto yi ci mbootaay yi ci daayira yi ci jumaa yi nekk ci biir réew mi ak bitim réew bu wér ci dagg reçu 1000 francs yi wala ci 12000 francs yi ku ko mën sax nag nga di si boole carte membre bi. képp ku bëgg yónnee sa addiya ci Touba ca kanam mën nga télécharger application Touba ca kanam ci Play Store wala Apple Store am na Wave am na Orange Money mbaa sax sa carte bancaire ak foo mën a nekk ci àdduna bi boo bëggee itam mën nga ko jaaralee ci numéro bi 78 544 33 33 am na Wave. am na orange money lépp ngir Touba gën a jëm ca kanam di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool